ca Mélanie ñëwal alors euh, Mélanie mën nga ñëw ah? ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup mi ngi noonu jëli nañu ci xool euh, bi xale bi xale bi mi ngi noonu. Ah. Fatima. Ah. léegi Fatima kay jàkkaarloo ak man. baax na ñoo mi neexul yéen ñoo ngi direct euh, ñu dem ci actualité people yi def def yi wax wax yi ko wax ko def nga daal di koy faram fàccee. mi ngoog affaire bi daal jingle bi dugg na wala. yaa ngi ci biir fi ah, maa ngi ci biir nii mi ngoog. <laughs> merci beaucoup Salma gërëm la gërëm mboolem téléspectateur ak internet yi ñuy teewloo coach ñu ngi ci YouTube bi. Mhm. ñaanal leen bu baax ndax bi ñu Babacar Diagne daggeeg léegi ñoom ba tey euh, ca la ñu gën a jàpp mhm. bàyyiwuñu euh, dañu koy door rek tey dafa am ci journaux yi rek benn une boo xam ne daal dafa marqué sénégalais euh, bokk na rek euh, ci euh, ka nga xam ne nag teg nañu ko loxo ko tuddi chef de corps bu bataillon bu musique principal bu force forces armées di commandant Ibrahima Chimère Baro moom dañu ko jàpp ci lu ñeel ay billets noirs maanaam ay faux billets fële ca Kër Massar brigade bu Kër Massar moo amal lu nu mel waaye nag leneen ca ñeneen sax ña nga xam ne jàppees nañu ca la ñu bokk teg nanu leen loxo di Mamadou Fatou Ndiaye ak Hubert Asobba Mbacke Sow ñoom ñooñu teg nañ leen loxo bokk nañu ci ay ñenn ñi ay étudiants lañ euh, technicien audiovisuel ak ñenn ak ñeneen gannaaw nag euh, moom commandant jàpp na ne rek euh, ci ay jafe-jafe la nekkoon yaakaarul woon ni mbir mi daana egsi fii mhm. mi ngoog lu ñuy lu lu lu jot toppandi rek la incha allah comme waxtu wi daf ñu xoj mhm. dañuy door rek ak leneen rek ci ay mbir mu mel ne nag awanaan nag dafa jaxase yi daal fi mbiri bala <laughs> <laughs> en tout cas. Euh, noonu noir Sénégal moom yaakaar naa duñu jóg ci yooyu. mi nga image bi euh, di euh, këru farbangom Ngom ñu taal gannaaw nag ab coow ya nga xam ne am na ci àjjuma. wala mm. sax am na ci ñoo xam ne dañu julli àjjuma. Mm-hmm. waaye nag ci boobu la bés ay manifestation dafa amoon ci Ngor jàpp yoof ndax nag euh, coowal terrain ba nga xam ne am na fa ci lu ñeel euh, gendarmerie ak euh, ña nga xam ne ñoo dëkkee ci yooyu le goxu léebu mm-hmm. moo waral jafe-jafe wala sax yenn tension yi amoon bésub lëmb ba ci démb ci guddi rek mm-hmm. moo ci mujj waaye kër gi dañu nemmeeku ni këru Farba ngoom la te dañu ko taal te daanaka nag euh, yàlla def na sutura ndax amul woon ay nit kenn nekku fa mais ñaawteef ya nga xam ne jot nañ ko nemmeeku. Mhm. ba waa COJER bu maatam génn di artu mhm. euh, ña nga xam ne ñooy def yooyu la jëf te it euh, jàpp nañu rek dinañu saisir yoon ngir rek mbooleem la nga xam ne mooy ñaawteef. yu am yu ñuy amal. ci mm. kaw ña nga xam ne ñoo féetee ci wàllum nguur rek euh, ñu jël ci ay dogal. Mm. rapidement mi ngi noonu tudd na ci wàllum cocktail Molotov ak ñoomin seen. Mm. donc euh, c'est que ñu ngi jël lii nag di ko askanalee benn parti. alors euh, xëy na dafa am ay manifestations yu amoon. lan moo amoon lan moo ñoo jugoon di wane seen nakar ginnaaw caxat caxate bi nga xamante ni moom la ñuy def seen wàllum suuf ak yooyu c'est ça non. waaw dafa am benn terrain boo xam ne. Mm-hmm. gendarmerie. ñoo koy xëccoo dañu bëgg tabax benn brigade foofu ndax fi ñu nekkoon mhm. bu tawee dafay am ndox mhm. ñu jël benn partie boo xam ne ci Ngor ñoom ñi fa dëkkee nee nañu côté boobu dong moo leen dese donc du ñu bàyyi waa gendarmerie ñëw di fa mhm. tabax te ñoom soxla nañu ko ndax benn espace boobu kese ñoom lañ fa dese loolu moo indi coow li ba ñu commencé taal ndax euh, jàpp nañu rek ñoom jotoon nañu commencé bay indi seeni ay matériel pour mhm. euh, préparer construction yeeg yooyu ba waral euh, coow li ba tey fayagul nag gis nañu jaraaf Youssou Ndoye jaraaf génn ci di ci wax waaye nag ñu xaaral ni rek fan ma mbir mi mujj waaye mhm. xeex bi tam jeexagul ndax démb ci guddi rek génnoon nañ di ci coow mhm. leneen tey rapidos man de ngeen yéen a may teg pression pour ci lii la la li jëntañ petit déj bi ah, <laughs> leneen euh, imam ñaar téeméer imam 1000 francs la ñuy euh, daanele euh, ki le di imam bu grande mosquée bu Ndakaaru mm. ni ki korité bi ñu génn rek nag amoon na ab discours ba ci ba muy wax sax jàpp nañ ne rek am nay kàddu yoo xam ne jot na ko fa yëkkati mm. mën nañu ko teewlu rek buñ paree ñu dikkaat te kat gis ngeen yi xew nii ku ci dee safara nga jëma ah, du jihaad ku dee ci ñàkk fayda yi safara nga jëm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 mu mel ni bindu na de moom. yi mu njëkk ci rek ci ay kàddu bokk na nee na mbooleem manifestation yi nga xam ne mi ngi amu fi mu ne nii ci réew mi képp ku ci faatu rek euh, safara nga jëm bon. lu lu doy waar ndax man mm-hmm. waxi safara moom wax dëgg yàlla euh, ay képp ku ci faatu safara nga jëm ndax euh, doonul jixaat doonul leneen ak leneen bokk na it ci ca la nga xam ne jot na koo yëkkati pour ñu déggul mm-hmm. euh, moom imam boo Grand Mosquée nee na képp koo xam ne daal ñëw nga di julli si ci biir jumaawam waxoon na la nga indi 1000 francs ñaar téeméer waxoon na la nga indi ko mm-hmm. xoolul ku joxe Tiwaawoon xoolul ku joxe feneen ak feneen waaye nag sàkku na rek te ña nga xam ne ñoo fay julli si boobule bés moom ku mu jiite bu paree da nga koy jox ñaar téeméer 1000 francs euh, ña nga xam ne nag ñoo nekk ci nguur gi ndax rek bi mu koy wax euh, président mi ngi fa toog yaa fi Amadou Ba ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokkis ci nguur gi boobule délégation mm. nee na leen daal nañu jël seen ay enveloppe joxe ko jox ko kenn mu indil ko teg ko ci loxom mm-hmm. mu doonoon ay kàddu yoo xam ne nag euh, andi na polémique ba yenn ci ay mbokkam moom ay ay imam mm-hmm. wala sax ay jàngalekatu diine jot nañu àdd jëmale ci boobu di mbir jàpp ni rek kàddu yu kenn du ne guléet ndax am na euh, ñeenti at ci ginnaaw ci même boobu euh, boobule moom mu yëkkati foo woon ay kàddu di xam ne ni rek am na lu ñuy def yoo xam ne yëfi reewande la mu mm. doon ay kàddu yoo xam ne boobule jamono dañ ko ñaaw lu woon moo tax it nag euh, bi lii génnee ñenn ci ñi nga xam ne ñoo féetee euh, ci euh, woy jàngalekatu diine yi jàpp nañ ne rek wax ji du guléet waaye la leen ci gën a metti rek bokk na ci safara nga nga xam ne daal dafa mel ni moom moo xam ña fay dugg mhm. ak ña dugg ak ci xaalis nga nga xam ne koppar yi nga xam ne mu ngi koy laaj ci jumaawam mhm. voilà xam naa moom mooy yàlla mooy yonent moom mooy décidé dernier jour bi wala ca bisum penc kan mooy dem safara kan mooy dem àjjana moom dañ ko ne na xutba na xutba mhm. rek yooyu yëpp mu ciy wax nii parce que parce que président mi ngi toog xool na la ci bët napp na la ci bët rek nga war a wax loolu yëpp ay ay yàlla suñu borom mi nga xamante ni tey ji moo la tiim nga war a taw taxaw yow jiite jumaa mm-hmm. di laaj ay 100 francs 1000 francs 500 francs tamit. non non man la question que ah. je pose mooy ci ay kàddoom da ngay dégg mu ne sama jumaa ji man juma ji moo ko moom wala. c'est pour les la. Mm-hmm. c'est juste la question que je me pose. Euh, euh, mm-hmm. àjjana ko moom mm. àjjana. ki gën a bon sax bu buñ ko jugé. voilà très bien àjjana. nañu bàyyi loolu. ay ay ay ay ay yàlla du nangu sa julleeg ay yàlla du nangu sa koor rek nit waxul wax loolu yàlla moo xam. Mhm. koor gu baax yàlla moo xam julli bu baax. yàlla moo xam ñun daal. ñun daal nañ def rek Sénégal. bon ñu ah. bàyyi loolu. Mhm. Mhm. àjjana yàlla moo ko moom. Mhm. ba xoolal mayu ci kenn. imaam bu toog di bindu en direct kenn. fii fii fii yàlla moo moom àjjana. ngir yàlla. fi fi réew mi toll Sëñ Tuubaa wax naka. wallaay. Euh, euh, Maodo Malick wax na ka dégg nga Baye wax na ka wax nañ ka yàlla moo moom loolu fi fi réew mi toll ak euh, tension bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci yenn xeexoo soxla nañu ñoo xam ne dañuy wax diñu xiirtal ci loo xam ne luy dalal réew la loolu la ñu loolu la ñuy xaar parce que bu ñu toogee ay kilifa naan ay ku dee safara ngay dem ku dem àjjana mel ni ku dee wi ba ñëwaat ku xam la fa ne ak safara nu muy demee nu ñuy duggi ak kuy sàkku ndax nee na euh, kuy ñaan nit kuy sàkku kenn du ko jox mm. après yow nañ ma jox 1000 francs nañ ma jox cent tamit pas 1000 francs lii nii dañ koo ñaawlu lu ñaawlu lu sénégalais yëpp ñaawlu mhm. donc euh, xaar doonul woon lii lañ doon xaar euh, ci yenn ci ay euh, kilifa wala sax wéy ñi nga xam ne ñoo nekk di jiite ay nit ñëpp mhm. ñaawloondoo ko waxtu yu def ñu xooj waaye mënul ñàkk bañ a jàll mhm. ñu ngi seet Pape Ndiaye bu image bi rek ñu xool ko ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi wala sax union bi nga xam ne ñoo nekk ci les travailleurs de la justice ngir yàlla na leen ministre bi recevoir ñu teggi moo d'ordre bi bu ko defee liberté provisoire mën a mm-hmm. dugg nit ñi xamoo fu ñu féetee parce que mm-hmm. tamit mënuñoo toog di liggéey depuis léegi mu mat ay weer greffier yi toog euh, di grève kilifa yi nekk ci justice ministre bi na leen teewlu mm-hmm. déglu leen bu ko defee ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay problème ñi war a génn génn greffier euh, signé leen liberté provisoire yi dugg ku ne xam fi nga féetee ndax nag soxla nañu ko fii euh, ci plateau bi soxla nañu ko ci liggéeyam ay njabootam soxla nañu ko ko ngir yàlla nañu ci waxaar rek bu fekkee am na koo xam ne xam na leen wala xam na ministre bi na leen déglu bu ko defee nit ñi mën a euh, xam euh, euh, fu ñu féetee mhm. coro aussi ñu ngi koy ñaanal bu baax fu mu nekk parce que wérul ci mhm. jigéen bu wérul ñaawlu nañ condition yi nga xam ne moom la nekkee waaye nag teewul sañ nañoo ñaan mhm. ay nit lañ te ay jullit lañu sañ nañoo ñaan njekk ñu bàyyi ko mu génn parce que nit ku wérul la dafa feebar nañu ko bàyyi mu dellu ci ay njabootam après lu ñuy régler ñu régler waat ko di la jaajëfal bu baax a baax Fatima liggéey bi am na solo ay fi nga daanelee. mooy rapidement am na solo loolu. wax dëgg <coughs> non non léegi nag di nuyu rek euh, ñëpp ñu nekk ci wàll sport bi surtout ku ci mel ni euh, ku ci mel ni ab Ablaye Fall lu tax ma koy wax. Mm. dinaa ci euh, beneen kii dinaa ci indi kii xam nga tournoi Copacabana kii Ramadan xam nga ci Ramadan bi. Mm. dañoo organiser benn tournoi bu rëy à Rufisque. Mm. jeunes yëpp ñëw fees dell et loolu yëpp. c'est grâce à Ablaye Fall. d'accord macha allah bu nekk Diourbel dégg nga euh, waaw waaw bu nekk Diourbel dégg nga trésorier général moo jël lépp en charge. fexe ba tournoi boobu am. dinaa ci koy ziar bu baax a baax macha allah président fédération wax euh, bu baax a baax aadama Ndao Damaso si si jàppandal gi mu dëkkeeg ñun macha allah ah, ci ay xéewalam ak yooyu yal na ko borom bi yokk bàyyi ko borom këram Cheikh Seck euh, liggéey bi am na solo war nag ñuy taxawoo am na solo di leen jaajëfal bu baax a baax yéen team du jour bi mais on rappelle juste que euh, Coromakhou Mandela c'est une femme enceinte de 7 mois Coromakhou Mandela son état de santé est critique Coromakhou la bu nga xamante ni dafay def liggéey bu mucc ayibam fii ci réew mi ñu ko koy nangul bu baax a baax Coro Maxu Mandela defu fi waxu fi donc ñu koy ñaanal rek mu génn ci jàmm ak salaama ci ni mu gën a gaawee euh, ñuy tàllal suñu loxo rek di wax euh, que ñi nga xamante ni tey ji ñoo yor dossier wam ñu def ci rek xéewal bu ko defee mu mën a génn mm-hmm. génn dem ci njabootam mm-hmm. waaye génn on rappelle juste que elle est vrai mais dafa